Euh, euh, waaw wax nga ko léegi de Ceddo Murid Sadikh ak ki nga xamante ne moom mooy Serigne Fallou Tine moom dañuy am contentement di ko di di di jàkkaarloo ak moom ndax wax dëgg yàlla suñu wërale bu baax la. Ah, euh, di dalal ki nga xamante ne aussi moom mooy Serigne Moustapha Kaye waaye laataa loolu daf dajale accident la ah accident bu amee nag danga nga ciy daal di ko tëxlu daal di ci waxaale sa soxla du dëgg HBK mënul ñëw ba dem. taxaw waxal te ko jàll baat rek maa ngi fi. bu kenn jàll kenn baat. non Pape Sidi. maa ngi fi. Pape. waaw. man xam nga ragaluma la yow. man xam nga faalewuma la. d'accord père Bekaay nag sama per la. ok euh, euh, père. père man nuyu naa la. ma faali kumba ndaawa tax ba balaa dégg. tax ba ñaar taag waaw waaw. waaw waaw waaw Seydou Mbaye. waaw yaa ko wax sànq. Mm-hmm. mais nuyu na waat nañ la. Seydou Mbaye doomu Mbaye. d' accord man la Bijou Ngoné doomu Père Gaston ayca <laughs> bisimilah. ayca Père nañ euh, euh, li nga xamante ne moom mooy fan yii yëpp actualité bi ni muy doxee waxtaante euh, bi nag Père daw yaa ciy fës yaa ci pee. Mhm. sa diggante ak Père Gaston. damay sant yàlla bu baax. bi julli ci yonent bi. Mhm. di gërëm képp kuy sénégalais. Mhm. képp kuy sénégalais je suis fier d' être sénégalais et puis fier des sénégalais. ay nit ñu baax ay nit ñu ma bëgg di ma ko won saa su ne ba pare ma wiññeeku di leen jéggul ci weeru koor lanu ne muy weer woo xam ne weeru lislaam la di weer woo xam ne weeru jéggalante la may jéggu may jéggulu képp kuy doomu Sénégal di jéggulu it julliti àddina bi yëpp mm-hmm. di ñaanal sama njaboot sama doom ak samay soxna samay doom ak sama soxna faatu mbaay di ko gërëm di gërëm samay doom ci yar bi ma leen yar ci li ma leen di won bis bu jot di gërëm ñu ma bokkal ndey ak baay di ci jiital suma mag Ousseynou Mbaye alaaji Ousseynou Mbaye mm-hmm. di gërëm samay mbokk yépp di gërëm njabootu Cheikh Abdou Khadir Jilani mm-hmm. di gërëm njabootu Cheikh Sidil Maxtaar Kunta yu njabootu Cheikh Bunaama njabootu Cheikh bu Mouhamed Kunta di ñaanal xalifa bii fi ne Cheikh al Bekkaay moom Cheikh al Bekkaay yàlla na fi yàgg yàlla na wér mm. di gërëm nag njabootu këru diine yépp ndax taxawaay bi ma am ci réew mi ak ni ma jàppe fu tol toll di ma ñaanal di ma wax yu baax ba pare nag di gërëm waa Grand Dakar fa ma dëkk ñuy sama lépp falaa juddoo falaa yaroo falan ma yare may booy Dakar di boy Grand Dakar yaroo fa yàlla dugal ma ci métier taskatu xibaar jànguma ko ci benn école yàlla jël ma yóbbu ma ci rajo ma ànd caag ay kàngam yoo xamante ni ñu may won yoon may dem di dikk am ma dugg ci làmb am lu ma def ci làmb jubook ñëpp ànd ak ñépp ba ku bëgguloon làmb bëgg làmb ma am lu ma ci liggéey fii ci kër gii di 2STV mhm. ma ànd ak Alaaji Jaay wax naa leen nekkul sama patron sama mag la sama xarit la ñu ànd liggéey liggéey bu rafet ba làmb tollu niveau boo xamante ni ni ku ci amul woon liggéey amoo ci oto amoo ci kër am nga ko ci te bu jëkk mbër promoteur daana ko tëgg mu liggéey ba dee mais du ci am dara dem na nañu ba mbër yi doon ay tiitarukaay ci réew mi. gàcce ngalaama mbay. lu waay di liggéey dem jëli ay mbër. Mhm. lu waay di wane wane mbër. mbër yu bëri am ci ndam am ci succès ma def ci li ma ci war a def ngeen gis it fan yëpp may dem di tukki di dem états uni di dem di ñëw pour yëkkati suñu culture réew. Mhm. ñu am leneen luñ ci rax muy MMA. ku mel ni moo gét di ma woo foofa ma fay dem di ko ci liggéeyal ñu dem fa mu am fa ndam ñu boole mm sabar bàkku fecc succès bu mag am ci man loolu mooy sama métier duma ma wax lu ñaaw déedéet du def nit lu ñaaw fonk naa Sénégalais yi fonk naa ko mu mën a doon loolu laa lay wax bijou à part loolu amuma leneen lu ma wax lépp lu ma waay wax yàllaa ngi fi. Hmm, père yow dafa yomb nag. à part waaw bu yeboo mu yomb bu yeboo. nga ñëw nii li nga bu yeboo bu yeboo mu yomb à lii. Mhm. match bi tas na. père match bi tasul. day doon a xaaral ma expliqué la père. parce que da nga fi ne waa père xaaral ma expliqué la mënoo fexe kaay la. mënoo fexe c'est pas la peine na match bi tas. Ah, ah. parce que fii laay yem. c'est bien les sénégalais. et eh. et puis wax a dinaa wax leneen xam nga leneen li may wax lan la. Hmm. yàlla dafa dogal 2STV jur Bantamba TV. Hmm. may kilifa ga. 2STV jël làmb jox ma ni ma yóbbul ci sa tele hmm. boo amee promoteur bu ñëw nga ñëw ñu liggéey boo liggéeyee ak moom signé ak moom ba pare nga ñëw ñun ñu liggéey ak yow. ci ligne boobu laa nekk promoteur bu mu mën a doon. bu bëgg a liggéey ak 2STV da ngay ñëw Total Media Sport Africa bi boot 2 bi boot Bantamba. Mhm. nga liggéey man maay ñëw maay indi làmb bi fii ci 2STV loolu nag mu ciy gërëm Alaaji Ndiaye. Mhm. Mariam Ndiaye. Abdou Ndiaye ak ñiy liggéey ci kër gi di ay xale am jom am fulla mhm. xoolal match bi tas na. tasul jeex na bul waxaat dara père tasul bul bu dee da am question. mais am na question. am TV li mu wax wa xaar ba Mbarax wax na dëgg. non Bantamba TV dañ ko interdire lamb euh, dañ ko interdire lamb Gaston Production. waaw tey jii euh, Gaston Production tëgg ay date yoo xamante ne. Mhm. forcément il faut que ñu xaar ci Bantamba TV pour ñu mën a am élément yi ñu bëgg. dama bu fekkee ne dañ koo interdire ci làmb ji naka la Bantamba TV di def. bijou match bi tas na. tas na li ci kanam raw li bët. yàlla yàlla may kon yow dat ñëw Bantamba TV du ñu mën a seetaan ñun euh, euh, ñi ki nga xamante ne moom mooy rëg rëg ak kii sàcce. waaye dama ne. mais grand bécaye match bi tas na leneen lu waay wax. wax ko kuy def. waaye di dem man doo dem. li may def nit ñi dinañ ko gis yàlla dina ko gis. waaye toog fii di wax lu ñaaw. Uh-huh. Sénégal mais le but c'est pas ça gàmmu jotee ma toog Cheikh Al Becaye toog ma yor micro bi ñu ne waa Jalle moo fi waxoon lu ñaaw du ma ko def. déedéet. Mm-hmm. na Sénégalais yëpp xam loolu. mais nag maa ngi clean maa ngi nice. je suis bien yaa tooj moo tax ngay clean. waaw bu yeboo yooyu yi ngay dugal yëpp xam naa la nand naa la yow naa la bis yu tamit. waa léegi en 97. laa dugg ci rédaction Walfadjri Ablaye Lam Reine Marie Souleymane Niang Alioune Ndiaye. Reine Marie Faye ah Reine Marie Faye Samba Diop Antoine. Hmm. mais ay ndaanaan ñoo ma ëmb. Souleymane expérience dugg ci làmb ah, ah? Père Gaston en 92 a dugg ci làmb. waaw waay waay sama yoon nekku <laughs> mais maintenant man. doo ko wax loo mais grand bécaye. sama yoon nekku mais grand bécaye man li ma bëgg a laajte mooy. waaw yow waxal parce que man ay affaire confrontation ay man sama yoon nekku ci. Mhm. man ma question elle est simple. parce que tey jii ñëpp xam nañ li nga def ci làmb Sénégal yëpp xam nañ man jot naa ci am tuuti information li xew te man loolu ça ne me concerne pas sama question mooy aujourd'hui combat yu mel noonu Gaston Mbengue ngi di tëgg est-ce que yow mën na la ci gis ngay commenter wala mën nañ ci gis Bantamba dugal ci ay éléments. raxu loolu du ay defante quoi. raxu defante wu ma. li ci kanam. raw li bët. d'accord jeex na de. nanu xool. d'accord na Sénégalais yi xool. d'accord man daal d'accord jéeri moo ne maa leen sama ma faale ko mën naa ma tëx bii. très bien <laughs> du wax lu ñaaw. d'accord mais PPK kañ nga commencé di tëx nii. donc y a un problème. du tëx ah coono ko way coono ko way la réponse elle est claire non donc y a un problème donc ça on peut pas régler ça. Eh, eh, eh, clair la moo clair coono ko way. rawali gët mooy mën naa ma tëx ba balaa dégg ko ci bala ñaar tàkk en déggoo ko. bu ko ci wax ma ne douze coups boo bëggee ñu tiré la nga dégg père yow lan la kañ nga di ruux nii. waxin la. mooy Grand Dakar. waaye waaye gàllankoor ruuxul de ruuxul de. dana toog seexal bi kaay toog ñu dégg ko wax lu ñaaw. waay waay waay Sénégal bul wax Sénégal yal na yàlla guddal seen yal na yàlla may leen wér. yal na yàlla may leen yal na réew mi am jàmm. <laughs> et puis ci weeru koor la ñu ne. et puis et marxu ci weeru koor la ñu ne. dëgg la ku ma tooñoon baal même internet yi ñu ma toj ñun réew. waaw waaw waaye Père Gaston yow yaa <laughs> alors. kon yoo xam ne mais bii bii bi daa mel ni yow itam eh, eh, da nga far. xam nga lu ma woor ba ngoon. mais yow itam daa mel ni far. Eh, kii na Pape Sidi et puis di la gën a sedd sama xol kii ma fi fekk. <laughs> cedd bu dëpp waxtaan bi cedd bu naqee <laughs> dama ko fee fekk te cedd ku baax la. kër ngi te outrage la ak ci sa jaar jaaru Serigne Touba. dëgg la looloo ko ñor bis bu jot ci loolu lay ne. wallaahi xale bii culture moo ko ñor. Mm-hmm. quatre-vingt ay quatre-vingt lay perte pour indi fi ay artistes fii ci Sénégal. dëgg la leen wax yooyu. ah wax yu solo yooyu. dee wax xam nga lan la. kii daa perdu beaucoup d'argent ci ay artistes yu fi ñëw. père xam nga lan la. père nag li muy wax nag moom bàyyi lu ñu wax ko rek. yow moom fi mu nekk bu waree wax tey wax waxal li nga war a yow eh, doo ma bàyyi. mais yow laa faral nag mais kii moom bàyyi ko yow may ñu rek gis nga muy ñëw. Imaam bàyyi commencé sànq nga am. Mbaye ndax mu épi bi lan la. lan la Mbaye Gale épi bi taxaw épi est-ce eh, que loo bàyyi wax boobu. Mbaye Gale buggul. dafa bëgg a dina wax. raxas doo ma déglu yow non bisu da nga arrêté. père bi buggul bisu. bisu nag kaay ma wax la. barke yontu yàlla Mohamed du ma wax lu ñaaw. te du ma tontu ci dara. déedéet non non. je ne suis pas comme ça non non yi ngay def yëpp xam naa ko. confrontation et puis émission bi bu leen ko def confrontation. non non du eh, confrontation non eh, non du confrontation. Eh. du confrontation ah da ngeen di seetaan kii muy def seen émission bi confrontation. non non non confrontation sax non non mi ngi mi ngi leen di jël di leen hold up. ah yooyu yow bisu yow bisu yow tamit. yàlla na yàlla defal lu jàmm. dama fi nekk naa suba dëgg la bu ma déclaré laa gis. dëgg la <laughs> ëpp daal wax ñu ngi lay ñu ngi lay tàmbalee mere fi mu ne nii. ñu ngi lay tàmbalee beneen affaire du damm sama beneen affaire dama créé bantamba mu def buum. léegi dama nekk ci yoon. waaye créé nga créé bantamba ñu dàqale si te dafa ay date yoo xam ne dañ eh, koy eh, xaar. Eh, Balla Gaye Gris Bordeaux faaw ñu xam ko te bantamba boobu dinaa la tontu boobu dinaa la tontu. boobu dinaa la ko may tontu la. bantamba 2STV toog nañu deux ans duñu dugg ci yenn lamb yi. buñ sondagé ñu jël pay. Mhm. boobu rek laaj tontu boobu dinaa la buñ sondagé ñoo jël pay. ku dëggal làmb ñun bàyyi baa la ñu yor dinañ ko dox léegi damaa nekk ci beneen challenge muy lay di tigre laa bëgg mu romb fi ma defoon bantamba ma yóbbu fa léegi ma mais lay di eh, tigre est-ce que mën na am sa làmb ah. moo gën a taxaw lay di tigre non bantamba la ñuy xeexal fi ñu di cool ci biir kër gi on a les moyens waaw émission lay di tigre ni mu mel. benn émission waxuma la lamb sportif mais lu ni. waaye pire lu nit yi mais ah non ah, ah, ñu ngi toj. ñu ngi toj. mais sa gàmmu day romb ñaasaan nag yow. <laughs> mais grand Bécaye est-ce que mën nga def lay du tii quoi. bantamba du moromu lay du bantamba ngay tëkkale alhamdulillah xam nga loolu dama ci sant yàlla tey Modou Mbaye waaw waaw Mbaye nag dala fee jële ma faali ko mën naa ma tëx ba <laughs> ma faali naa ma tëx ba balaa dégg fukki balaa ñaar taax Modou Mbaye te day toj réew mi sa gàmmu day romb Ndiassane la Mbaye Fall tafa rajaxe réew mi <laughs> <laughs> ah, mais na ma koy waxe ñu rajaxe réew rajaxe leen benn di dugg ci plateau yi di ko rajax yow yow yow yow bisu. oh yaya bisu bisu comme c'est sûr que oh, am mënuñu am beneen réponse bii. Euh? xam naa ko du romb foofu. non non ligne bu mu tracé boppam. quand même non xam naa ko tamit bisu. booy booy Grand Dakar. doo booy Grand eh, Dakar pas Grand Dakar pas Grand Dakar. fenn <laughs> yow dootoo pas Grand Dakar. dama daan toog am sept doo ñu attaqué pas bi. Eh, yaa ngi dégg ñu far. sept ans waa asalem ñaari tali. dégg ma bu yow question yi ngay laaj dana bis gars yi génn sot dafa paas toog am sept ans huit ans déglu toog am sept ans huit toog Ndiaga Mbaye toog mu ngoon ne Jaay toog Bada Mbaye maa père da ngaa tooñ nangu woo tontu paa père ay ndaanaan di wax may dégg doon xale ñooñu ëpp xam-xam ñi tubaab yi di tiitaroo fii ñooñu xajunu ci ñoom mm-hmm. ma toog nii yor sept ans nii ci seeni um laa jànge dox ñooñu suñoo tooñ promoteur yow ah? da nga tooñ. ñooñu suñoo tooñ promoteur yow da nga tooñ. bu waaw bu yeboo waaw waaw waaw bu ci weeru koor la ñu nekk koo tooñoon. baal ma. baal ma bu ma tooñoon non non Gaston kon baal ma. man daal. xoolal waxal. waay waay waay kii. bul tudd turu Gaston. Pape àtte leen ñëpp la yow ngay modérateur. waaw ma toog fi nga may seetaan ak waay. non moo tax ma yow déedéet yow mais bàyyi jàmbur bi loo ci xamul loo ci xamul père père loo ci xamul doon jéego jël na sa défense fii ba ñëpp ñëpp d'accord doon fii la taxaw doon jéego yow tam waaw booy town la nee na ku laal père Bécaye xam nga duñ fi jaaraat mais doon jël na jël na défense waaw mais doon nga war a doon maa ngi nii ku faral waaw bii bu wéet nga ci nag bu kenn yëkkati yéen bu leen yëkkati laajee ku faral père Bécaye faral père Bécaye sa loxo si kaw ñu ngi nii ah yéen famille daa ngeen woon. suñu papa rek. yéen ko ma doomu Gaston contre doomu Bécaye rek du juree. abstinence la war a def la ñuy daal di continuer bii ju ngoone. mais euh, raxu ak euh, ñi nga xam ne ñoom laa àndal liggéey bi dañuy daal di sëmb nag waxtaan woo xam ne. dafay laaj si pour ma tëj rek benn parenthèse pour ma tëj benn parenthèse parce que tamit euh, certes neex na nii rek ñu ñu ñu wax parce que. quoi qu'on puisse dire tamit euh, Père Bécaye daf fi def liggéey bu am solo. dafa def liggéey bu am solo. ñun ñëpp euh, oyof bi moo tax tooñ beek yii yëpp di ci am waaye moom comme ni ma ko waxee euh, sama émission vendredi samedi passé ma faari commanda ma tax ba génn la ci làmb ji dana xaw a metti parce que dangay làmb ci lépp donc ngay ngay suñu fierté waaye da ngaa tooñ. du bàyyi de du bàyyi de. jërëjëf Gaston moo sikkul Gaston dafa sikk. day tooñ ñar bi waaye sikkul. dafa sikk. day fa tooñ ñar bi waaye Gaston même boo ko tooñee tooñ bu ndaw dalay tooñ tooñ bu rëy. waaw mooy tooñ ñar bi. ah non mais man faralu ma ko. du tooñ waaye day tooñ. dama mais faralu ma ko. père la <laughs> mi ngi tiim téléphone am di xool coach mi dafa tooñ. kon si kon on peut terminer. kon si xam nga nooya. Euh. maa wala ko. maa bañ. am nañ ay jotaay yoo xam ne dañuy bëgg mu murite lool. Mm. dañuy bëgg mu ànd ak tëlu bi dañuy bëgg mu ànd ak digley euh, yoonu murit moom moo waral saa yuñ ci bëggee dugg dañ ci ànd ak ki nga xam ne defe naa ne miin nañu suñu diggante maak moom euh, miin nañ ko it ci xarkanamam ci liggéey bi muy amal ci 2STV ci li ko dalee balaa màggal di yegg si jamonoy màggal yenn mbir yu bëri euh, ci yoonu murit daanaka yëpp. forox ndollam lay jaar ngi yegg si ñun mooy càllale gi te ki démb jox nañ ko mbubb moo xam ne mun Mountakha Mbacké moo ko ko jox di ko mandargalee ne ko ndamal yoonu murit nga moom Ceddo Murit Sadiex moom lay bàyyi mu tàmbali